asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziyaar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm naka màggal gi nag ah ba fàttewu leen ma ci ñaan waaw comme ñun waa Genève da ngeen ñu fàtte kay waaye yàlla baax na mën nañ fi dóor benn euh, galette de pomme de terre au bu saf sax bu neex boo xamante ni xam naa ñi jóge màggal gi duñu am duñu am temps donc dinañ ko mën a reprendre ñun ñi nekk ci diaspora bi nag nga xam ne sedd baa ngi ñuy xaw a daaji waaw mën nañu reprendre recette yomb na de. waaw yi astuce pratique yi la bokk waaw kay facile et rapide donc pomme de terre jël naa quatre yoo xamante ni dama ko baxal donc moom la ñuy ñëw écraser noonu grossièrement mën nga jël sa presse purée wala nga jël fourchette comme ni ma koy defee yow daal écraser ko menal na kuy defaral la yaa euh, compotam daal waaw comme moom bëgg na écrasé de pomme de terre lool. donc mi nga ko bu ko écraser ba pare daal di ñëw nag euh, ci yeneen ingrédients yi ñuy soxla am naa fi persil ak coriandre bu ma dagat Euh, soble poivron rouge paprika nen euh, xorom farine ak thon waaw ak poobar moom lay soxla donc paprika bay dugg noonu ak xorom bi ak poobar bi dañuy jëkk sàppali parce que pomme de terre bu lewet nag moom lekk ko euh, du yomb mu ngoog su ko defee ñu daal di poobar dajji sa ñaari potu thon soit thon a huile rek wala thon à eau boo ci am baax na waaw mu nekk ay galettes yoo xamante ni mën na servir entrée comme sax mën na nekk plat de résistance ci boo ci boolee sa benn salade rek waaw mën a daal di dégg jàmp léegi nag euh, farine lu toll ci ñaari kuddu yu mag ak genn wàll mën na nga def farine comme mën nañu utiliser itam chapelure mais man je trouve que farine bi mooy gën a mooy gën a tenir léegi ñu wàccee tuuti poivron bu ñu fejat poivron rouge pour andi tuuti couleur soble persil ak coriandre donc légumes yi itam daf ciy am solo mu ñëw bokk ak pomme de terre bi nekk euh, recette bu complet waaw léegi lu ci des nen bi moo ciy des ak thon bi waaw ñu rectifier waat assaisonnement bi ñu ko wax émietté thon bi ba mu sew daal di ko ciy dóor waaw kay yow wàccee ci sa thon rek bu bëggul boo lekkul thon tam mën nga ko mën nga ci def sa jambon. def même procédure bi mais au lieu de ton bi nga def sa jambon ñaari nen waaw comme mélange bi dafa xaw a bëri mais su bëriwul mën nga def benn nen mi ngoog ñaari nen ñu daal di tàmbali nag yëngal jaxase ko ba mu jaxasoo rectifier assaisonnement bi ñam mu baña a lewet sooy lekk kaani mën nga dóor tuuti kaani piment de Cayenne waaw mu def ci tuuti gu gis nga paprika bi ma ci def paprika fumé bi daf ciy def tam tuuti goût léegi su ko defee ñu daal di malaxé mélangé ba mu jaxasoo avant ñu ñëw di former sunu ay euh, sunu ay galette daal di koy saaf waaw soo gisee ni dafa xaw a tooy tuuti mën nga dolli farine wala nga dolli chapelure waaw kay léegi nag euh, ñu daal di koy mélanger ngoog yow daal jaxase ko ba mu ba mu jax jaxasoo daal nga xam ni poobar bi du féete boor wala jaune d'œuf bi daal di féetee boor mélangé ko daal ba mu homogène bu la neexee nga jël sa loxo léegi loxo yi ci noonu sax laay ñëw dañ koy diw tuuti diwlin mi ngoog daal di jël benn bulet defar benn boulette après ñu aplatir ko ok tàcc tàccal ko mi ngoog ko tàcc tàccalee daal di koy teg teg teg sunu diwlin mi ngoog ñu tegee diwlin bi nag soxlawul muy sens. donc léegi nag dañuy defar galette sakkan na nag sakkan na parce que man am naa ci lu toll ay euh, une vingtaine de galettes ci ñeenti pomme de terre soble persil coriandre poivron rouge xorom poobar paprika nen ak farine toujours am na ñuy laajte ingrédients yi ci barre d'infos bi mais dinañ ko dinañ ci ñëw waaw naa wax Ricardo mu koy dugal. kay comme moom moo nekk ci technique bi waaw kay nay dugal nay dugal bagage yi parce que léeg-léeg dafay am ñoo xamante ni dañuy déglu vidéo bi mais tamit di yor seen seen liste ingrédients moo leen di gënal donc yooyu yëpp dinañ ci dinañ ci ñëw incha allah si sinon di leen fàttali que ni euh, sur Facebook bi dinañu commencé direct yi waaw direct euh, Alphie Cuisine sur Facebook donc mën ngeen dem abonné wu euh, dugg ci Facebook bi tàppee Alphie Cuisine daal di aimé page bi nga xam ne su ñuy def direct. yow bagage yi du la romb direct yi tamit si YouTube bi euh, dina ñëw waaw yooyu yëpp ci ay élaboration wu euh, Ricardo lépp dina fi wàcc daal sama gars yi waaw koy nañ ko suivre ndoo waaye ci kaw nag ngeen di abonné wu da ngeen di abonné wu nag sama gars yi waaw ngeen di abonné wu parce que ñiy seetaan ñu ci bëri moitié bi abonné wuñu waaw da ñëw seetaan sa vidéo rek dem boo bësee s'abonné bi tamit euh, day gën a neex de ñëw daal abonné wul rek daal di like bés ci pouce bu bleu bi bàyyi sa benn commentaire bu ndaw ah yow tam jaajëf dafa yokk ngóora yooyu dafay tax nga gën a motiver waaw koy léegi nag comme galette yi doore na waaw wax ci xaw na bëri nañ ko seppi ci papier absorbant mun naan dëwlin excédent dëwlin bi yépp waaw koy yow jëlal sa papier absorbant teg ci galette de pomme de terre au thon yi mën nga jëlaat beneen papier daal di koy màpp mi ngoog dindi excédent dëwlin bi yépp donc am na ñoo xamante ni fii dañuy utiliser huile de pépin de raisin moo gën a digeste ci dëwlin yi nga xamante ni moom la ñuy saaf donc mi ngo buñ ko fompee bu baax door deuxième round bi mu daal di pare de ñoo defaral sa tuuti moutarde wala nga defar sa ketchup euh, wala nga defar sa sos baax bu kiw boo ci am rek baax na pour mën a déguster sa ay galette aux pommes de terre euh, galette de pommes de terre au thon mi ngoog man moom jaajëfal naa leen maa ngay jàll ci dégustation ba ok nii laa koy defee à la célibataire à la étudiante li nga xamante ne du soxla décoration du soxla dara yow daal cappal ci euh, ci ketchup bi daal di tàmbalee déguster donc jaajëfal naa leen sama gars di leen fàtte fàttali euh, ngeen yokk abonnement yi di cliquer ci like bi et di bàyyi commentaire mi ngoog sama gars noonu la rek na woon fa woon jaajëfal naa leen di nuyu waa Tim Christian sama étudiants yi sama célibataires yi ak sama jeeg ju ndaw ji nga xamante ne ñooy suivre Alphie donc on se donne rendez-vous très bientôt pour beneen recette ci Alphie Cuisine merci beaucoup jaajëfal naa merci